mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi delluwaat di ni di nuyu comme niñ ko defee fan yi yëpp euh, luy ay di jàmbat te xewoon euh, arène nationale diggante Papa Sow ak Siteu ak li ñu fa jot nemmeeku muy fitna boo xam ñu bëri am nañ ci njàkkare alors ñu ngi ak ak Gora Ndoye président des jeunes amateurs Gora lay nuyu. waaw Pape magget maa ngi lay fay di kontaan bu baax ci dalal bi ma dalal fii Sénégal di bëgg ci amateuru làmb yi di nuyu aussi tamit képp koo xamante ni yaa ngi autour di làmb di sant ñëpp di gërëm ñëpp. làmb ji am ngeen ci wàll. Mhm. président des jeunes amateurs yoo xam dañ leen reconnaître au niveau du CNG ngeen am seen kayit yëpp. Mhm. te bu ñu nee làmb dañ naan supporter fans club ak amateur mhm. amateur dañuy solo ba njëkk ñëw toog. ñoom sax des fois ñu bokk ci organisation làmb ji. gis nañ li jot a xew muy fitna. yéen ban kàddu ngeen ci am dem nañu sax. Euh, ba dafa mel ni ci am na ñoo xam ne li ñuy sàkku mooy. Hmm. ñu tëj arène nationale lan mooy seen kàddu ci loolu. Hmm. waaw Pape Maguette loolu li ci suñu kàddu mooy vraiment moment bi ñu toll nii boo xoolee làmb mu ngi ci ay jafe-jafe. Hmm. parce que tey nationale yaakaar naa bijou 32 milliards la ñu yàgg ñu wax fii lañ koy def fee lañ koy def ci ay président Macky Sall yàlla jaaree la ko ci loxoom ñu jaar ci loxoom ministre des sports mi monsieur Matar Ba ma koy nuyu de passage. kon tey arène nationale boo xam ne def nañ ci plus de 32 milliards yaakaar naa ne ñi ko séq muy ñi composé la bi yëpp nga xamante ni mooy le CNG comme ni nga ko waxee les amateurs les fans club les lutteurs ñëpp war nañu xam ni li ñu am nii du ay caaxaan. ñu respecté ko et puis fexe ba nga xamante ni tey kenn du ñu gis ci lu ñuy xeebee mais malheureusement gis nañu incident yi nga xamante ni am na bërki démb ci stade bi ci diggante Papa Sow ak Siteu mu nekk loo xamante ni lu ñaaw la ñu koy ñaawlu ñun amateurs yi vraiment parce que làmb soxlawul image boobu làmb li mu soxla mooy nit ñi ñëw fair play dundu événement bi mu jàll ci jàmm ñu na ñibbi seen ay kër parce que fii Sénégal la ñun ñëpp ñoo ko bokk dëkk bi xat na xataay boo xamante ni dara jaru fi violence dara jaru fi lenn li gis nañ nag ne vraiment moment bi ñu toll nii vraiment ñi dëkk ci autour stade bi yëpp jaaxle nañu bi nag ñun li ñu war ñun amateurs yi mooy interpeller ñi nga xamante ni tey ñooy le CNG ak état bi ñu appuyer làmb jàppale ko ba mu génn ci difficulté yi mu toll. interpellation boobu noonu. Mm-hmm. parce que bu ñu xoolee. Mm-hmm. c'est pas la première fois làmb ji demee nii. Mm-hmm. lu ñu wax làmb ji rek même football am na ci keroog lu xew. fële ca euh, Tëngéej. Tëngéej ñu ngi ñaan ñi ci génn na wala ki ci génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm xaaral ma àjjana euh, coow li foofu tëj nañ stade bi. Mm-hmm. mais tey li ñu gis si làmb gisoon nañ ko ci yeneen ay làmb dafa mel ni mbir mi. Mm-hmm. dafa commencé di law. Mm-hmm. interpellation boobu boo leen koy def ci CNG. ak tamit au niveau de l' état. yan interpellation lay doon lan ngeen di sàmm. waaw comme ni nga ko waxee rek lii am ni du c'est la première fois mm. parce que boo la boo fàttalikoo ci ginnaaw tuuti diggante Moustapha Gueye ak Balla Beye numéro 2 ji dafa yàqoon diggante ki nga xam ne mooy nees ak Balla Beye numéro 2 lamb ji dafa yàqu diggante Lac Rose ak Garga Mbossé ñëwaat na aussi tamit keroog bi nga xamante ni Aline Seye numéro 2 ak ñàkk jari ñu ngi bëre mm. ñëwaat na dimanche passé ci diggante Siteu ak Papa Sow mm. foofu nag ñuy ante interpellé état bi ñu jël seen loxo dugal ko ci làmb parce que ñoom ñoo fi teg CNG bi te état moom mooy moom mooy moom CNG kon nañ jàppale CNG bi monsieur Birame Sène ñu ngi koy remercier di ko ñaanal yàlla jàppale ko parce que gis nañ liggéeyam bu mu am ci CNG bi mu ngi def le tout pour làmb jëm kanam mais nag dafa am ci ay côté yoo xamante ni vraiment ñu ngi ciy gis ay failles mu ci côté promoteur bi parce que promoteur bi aussi war na mën a gérer bés bi ba nga xamante ni sécurité bi du mooy événement bi mais tey gis nañu événement bi pour ñu dugg ñun amateur dañu am problème bi gis nañ dafa bëri ay ngeen dugg da ngeen am problème sérieux problème porte bi ah. parce que gis nañ dafa benn benn mbooloo boo xamante ni tey ma jàpp ne tey arène nationale yomb na canaliser parce que ñaari porte la boo xoolee porte bi jógee ci cimetière yi ñëw ak porte bi jógee ci tribunal bi ñëw diggante boobu bu ñu ko tëjee képp ku yor oto ñu bàyyi la nga jàll képp koo xam ne yaa ngi dox yoroo bii amoo accès foofu ci biir stade bi. foofu loolu bu ñu ko defee rek dina tax porte bi képp ku ñëw nekk ay amateur di nga ñëw gaare sa oto wala nga dugg ci biir te doo am benn jafe-jafe. Mm. mais gis nañ ne supporters yu bari ak ñuy def violence en face stade bi la ñuy toog bokk ci événement bi bu làmb tasee rek ñoom ñooy génn di dugg ci biir mbooloo yi di dugg ci biir pikinois yi di yàq seen ay magasin yi. marché zinc léegi bu làmb amee 17 heures commerçant yi dañuy tëj mm. autour stade bi technopole bi ñëpp léegi dañuy tëj. am na ci ñoo xamante ni ñu ngi wut ay armes pour lan bu lamb jeexee ñu taxaw défendre seen ay intérêt mooy seen kër yi nga xamante ni te loolu fitna lay indi mm. parce que lamb ji booy xool ba léegi nii combat bu mag amagu fa mm. tey Ama Baldé ak Modou Lo bëreeguñ fa mm. Boy Niang Tapha Tine combat événement la ñëwagul ki nga xam ne mooy guy gi ak rëg-rëg fa la ñu war a bëree Balla Gaye Bombardier yooyu nekk ay événement yoo xamante ni tey jii ñu ngi koy xaar amateur yi di ko xaar mu nekk événement yu war a gën a romb bis bi yi nga xamante ni ci lañ jóge muy Siteu ak. ça veut dire que alerte jot na am. avant combat yooyu moment bi nag ñun alerte la ñuy def. Hmm. parce que it du ñu xoole ba ñu tëj stade bi parce que loo mënt dégg mooy sport Sénégal dafa bokk ñun dañu bokk ci sport bi muy jeunesse bi. mais mais mais góor a tamit. Uh-huh. Euh, bu ñu tëjee li nga xam moom mooy football bi. Uh-huh. ñu ne làmb du ñu ko tëj. Uh-huh. loolu damay yaakaar ne. loolu peut-être mun nañu wax ne teguñu ko la fee am violence. ñu tëj ko muy football bi. làmb li am violence moo wax la loolu. mooy ah. sport ak réew ñoo ànd. dëkk boo gis sport dafa am solo. ndax football bi mënoon continué ci développé réew. non football bi dama jàpp ne moo ko làmb ji yëpp ñoo yam ah. dama gis ne war nañ mën a renforce sécurité bi rek état bi jàppale sport sportif yi ñu ñu yokk sécurité bi. léegi état fan la war a jàppale waa CNG. waaw peut-être euh, pour jàppale CNG bi dina yomb ci ñoom. Mm. parce que ñoom ñoo fi teg CNG bi. Mm. ndax yaakaar naa CNG démembrement état la. Mm. ministre des moo leen coiffé ñoom ñëpp. te yaakaar naa ñoom ñooy état. kon pourquoi pas ñu jàppale CNG bi ci lenn mooy yokk sécurité bi. bu benn promoteur ñëwee jël signé contrat jël 500 gémi ñoom ñu dolli ko 500 gémi ba nga xamante ni événement bu ñu mën a organiser ci arène nationale bi dina mën pare jox ko sénégalais yi ñu di ci bànneexu parce que tamit euh, lamb booy xool am na lu bari loo xamante ni tey mu ngi koy représenté tey fii Sénégal ñu gis nga li topp seen ginnaaw ni mu yaatoo ñu nekk aussi tamit ay référence tey ku nekk tey bëgg nga xam Balla Gaye wala bëgg nga jur Balla Gaye gis nga Modou Lo tey gis nga ku mel ni Bombardier gis nga ku mel ni Ama Baldé ñoom Boy Niang ñoom Tapha Tine ñoom ñëpp ay référence lañu nekk ay porteur de voix ñoom aussi ma leen di lancé message ñu jël seen ay kaddu ak seen image génn wax ak supporters yi kenn ku nekk ci ñoom maa ngi lay lancer message nga génn wax ak say supporters wane ne lamb ñun ñoo ko moom parce que ñun ñooy ñun ñoo ñu nga xamante ne tey ñooy nit ñi. mais pourtant bëri dañuy sensibiliser ah boo gisee seen face dañ naan dañ leen ñëw ci jàmm mm-hmm. lamb ji am ci jàmm. waaw mais gisee tey. Mm-hmm. benn tëggkat di xeex. Mm-hmm. buñ gisee accompagnant wu mbër. ñoom ñooy xeex mais mbër yi xeexuñu seen biir. mbër yi moom ak supporters yi loolu moom vraiment lu ñuy lu ñuy dénoncer la. comportement nit ñi waruñu ko xoolaat. war nañ ko xool ak dal te yaru parce que dëkk boo gis mu développé ndaw yi ñoo ko développé te Sénégal bii nii dara xaju fi ñun ñëpp ñoo far tey Siteu ak Papa Sow war nañ bëre ba pare dem seeta tëdd di tuddante ay doom parce que gis nañ ne mbër yi seen président muy Gris Bordeaux bi nga xam ne mooy président lutteur en activité yi gis nañ association bi ñu def keroog bi nga xamante ni tey jii dëkk bi am na ay jafe-jafe ñoom ñoo bokk toog yi benn table pour ñaan ci dëkk bi jàmm gis nañ ko muy Modou Lo di Gris di Tapha di Eumeu seen ñu bokk benn table te pourtant dañuy bëre di defante lu ne mais bi seen intérêt di réew taxawee dañuy taxaw défendre ko kon ñoom ñoo bokk Sénégal lamb benn temps bu ndaw la rek bu jeexee après dañuy. continuer ci sensibilisation en mhm. tant mhm. ngeen di def wala boog est-ce que commencé ngeen di approcher. Mhm. ñi nga xam ñoom ñooy mbër ak itam di dem di waxtaan ak les supporters. loolu tamit lu am solo la seen. waaw les supporters ñun jël nañ ci benn benn initiative mooy teg trophée des amateurs. nga xamante ni chaque année bu saison bi tëjee dañuy xool amateur bi nga xamante ni yi nga xamante ñoo ci a mm. ne CNG bi à tout moment day sanctionner mm. ndax gis nañ baax gis nañ ko mel ñëpp bëri nañu ba pare seen ay licence CNG bi daf ko mooy siège yi nga xam ne seen supporters yi jël nañ ko damm ko di ko sànni ñu bi ba keroog dimanche gis nga am na ay ñu damm ay chaise kon loolu jàpp nañ ne mënul réglé problème bi ñun ñu indi trophée des amateurs pour teg ko pour supporters yi ànd ak discipline parce que li may wax rek Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk na ndaw ñi ànd ak dal lamb sport noble la bu njëkk suñu papa yi dañ leen daan gis ñuy sañse di ñëw lamb lamb nekkoon référence mais léegi amateur amateurs yu bëri nangootuñ ñëw làmb te loolu ñun loolu la ñuy que dañu bëgg amateurs yi toogoon ñu indiwaat leen que làmb suñu sport national. kon nga ne ñu dëkk ci wetu stade bi yëpp. Mhm. ñuy commencé def pétition ñu mhm. est-ce que gisoo ne solution la ci benn at ñaari at. Mhm. pour nit ñi mën a amaat conscience. parce que bi coronavirus amee làmb ji tëjoon ñoo doon réclamé nañ ko tijji. mbër yeeg amateurs yi yëpp di ko réclamé. mais tey ñu tijji ko ñuy gis fitna di répété di répété est-ce que tey. tëj ko benn un an xoolaat li ñu koy càmbaree. pour nit ñi seen xel mën a dellusiwaat du solution tamit. Mm-hmm. waaw non tëj bi moom man gisuma ni gisuma ni solution la parce que tamit euh, loo ci mënti dégg mooy sport comme ni ma la ko waxee dafa bokk ci réew. tëj bi waaw non non football bi. xëy na nawet peut-être bi la ñu tëj mais jàpp naa ni football bi en manière générale tëj ko. non non la parce tey làmb comme ni ma la ko waxee rek jàpp naa ni bu autorité yi ñi nga xamante ni ñooy acteurs yi ñu hmm. booloo. Hmm. CNG bi aussi tamit di gaaw di réagir bu mbir xewee. parce que tamit euh, dañ leen fi teg pour ñu jiite làmb ji hmm. kon am na ci yenn réaction yoo xam bu mbir xewee rek nañ gaaw def réaction parce que tamit sénégalais am na ci loo xamante ni bu amee rek amaat rek bu yàggee rek dañ naan non lii boo ko defee dara du la ci daan bu waree am bu nit tooñee tey manifestation bi am na lu ko yàq ki toor ki ki nga xamante moo indi toor bi wala ki nga xamante ni moo yàq manifestation bi nañ ko teg ay daan loolu jarul sax di di di xaar de 14 heures à midi à 14 heures parce que tamit làmb ji te CNG bi moment bi mu toll nii dañ leen fi teg pour ñu liggéeyal làmb message beneen bi aussi tamit mooy li wër alentour stade bi man Pikine laa dëkk mais comme ni nga ko waxee ñu ci bëri fi mu nii ñu tëj làmb ji lañ bëgg mais loolu aussi ñun liñ ciy interpellé état bi di ci interpellé li nga xamante ni mooy le CNG mooy ñu jàppale ñu ci sécurité parce que bu sécurité amee rek Pikine yomb naa yomb naa canaliser parce que ay nitu làmb ñoo fa dëkk ay mbër ñoo fa dëkk dañ daan jóge Pikine di dem ville di seetaane làmb kon bu ñu leen indilee arène nationale seen biir gox loolu yaakaar naa sant yàlla la. bi ma li ma lay mujjee laaj. mooy coow li coow li amoon na amaan na bi ñuy door ubbi arène nationale mhm. na ñu doon wax naan méngoowut ak làmb. Mhm. te boolewuñ ci ñi nga xam ñoom ñooy ay làmb dañ mhm. tabax seen stade bàyyi. bi mbir mi xewee. si la ñuy door a constaté waat ne. làmb ji war nañ ko xoolaat ci stade bi bi parce que méngoowut ak làmb supporter jege mbër yi. Mhm. pour nga sànni si xeer. Mhm. nit dafay yomb mhm. loolu lan nga ciy wax pour ñu xoolaat ko am ci defaraat. waaw côté stade bi comme ni nga ko waxee ñu bëri ñu ngi réclamer loolu. maanaam chinois yi nga xamante ne ñoo defar plan bi ñoo defar stade bi. ko liggéey en tant que ñoom seen dëkk. ci seen dëkkuwaay ñoom ak ci seen ci seen vie. Ah. ci lañ tabax stade mais bokkuñu ay réalité parce que tey jii nii sénégalais am na ñoo xamante ne xamuñu sport. te sport boole meelu tàqale. tey boo xoolee géew bi dafa jege trop yi comme ni nga ko waxee mais foofu aussi tamit man am naa ci xalaat mooy CNG bi nañu fexe am ñaari barrières yoo xamante ni day wër géew bi benn bi mu nekk en face géew bi beneen bi aussi nekk beneen barrière boo xamante ni day nekk ci ginnaaw foofu dina tax tey jii képp ku jóge ci tribune bi mënoo tëb ñaari barrière dugg ci biir te sécurité bi teewu la beneen bi aussi tamit boo xoolee loge bi fi amateur yi di toog ak tribune ak géew bi dafa am distance ñi nekk sax ci découverte bi ñooy gën a jege géew bi que ñun léegi foofu aussi jàpp naa ne war nañ mën a avancer indi géew bi tuuti ba xoolee mu nga xamante ni dina xaw a jege tuuti tey couverte bi ba nga xamante ni manifestation bi yow ñu ngi ñëw di ko mën di xool ni nga ko bëggee beneen bi aussi tamit mooy sécurité bi nga wax ci biir géew bi foofu ñu ngi fiy interpellé CNG bi bi ñu monsieur le ministre Matar Ba recevoir bureau wax nañ ko ko CNG bi ci bëri ay mag nañu renforcer CNG bi ak ay xale ñoo xamante ni tey bu action naree am rek ñoom dinañ mën a def réaction ci saa si mën a réagir pour loolu mën a fay mais duñu gis ne à tout moment bu problème day am rek big ak feuille la yor bind après la la ñuy wax dagg nañ mbër mi dagg nañ mbër mi nañuy fexe ut ay ndaw yu nekk ci biir CNG bi jàppale ñi nga xamante ni tey ñooy sécurité bi nekk ci biir CNG bi foofu aussi dinaa am ñaar ñu ci interpellé hmm. parce que ay Pikinois lañu ma dëkk Pikine lu baax li ñuy def biir Pikine ku ci mel ni Doro Gueye di liggéey président hmm. Chéri Clara ma koy nuyu de passage muy nit ku baax aussi aussi di interpeller ki nga xamante ne aussi tamit mooy Thierno Ndomba. parce que ay leaderu APR lañ nekk Pikine aussi tamit di jàppale le président de la République du Sénégal kon ñoom aussi maa leen interpellé ci lépp loo xamante ni na ci li mbirum société de gardiennage boo xamante ni wala de sécurité. war nañ ci dugal seen loxo war nañ ci mën a dugal seen loxo parce que ay Pikinois lañ. Mm. te waruñu nangu aussi tamit arène nationale nekk biir Pikine violence di am biir Pikine ñoom ñu am lu ñuy représenté biir Pikine ba pare di seetaan loolu. Mm. pour jàppale seen loxo ci sécurité bi. Mm. ba nga Euh, maanaam programme bu fa mënti am lamb lu mu rëy rëy rëy rëy rëy du leen dépassé dinañ mën a dugal seen loxo ci sécurité bi ba nga xamante ni tey Pikine fépp fu ñuy tudd rek dëkkuwaay rek pouvoir rek dinañ ko ci boole parce que ñoom aussi ay bonne volonté lañ te gis nañ li def biir Pikine ñu ngi leen di a mm. baax waxtaan bu baax euh, Pape Maguette di bi mm. di nuyu les amateurs de lutte du Sénégal mm. particulièrement diaspora parce que gis nañ vraiment bi affaire bi amee ñoom ñëpp jël nañ seen ay téléphone di ñu woo di métti li lu nga na ah diggante bi nag booboobu léegi a tranché lañ fi teg ñoo ngi toog ñoom aussi di leen déglu que ñëwuñu woon ca làmb ji pour seetaan violence après ñu ñibbi. Mm. suñu ay billets cher lañ dagg ñëw ñu ngi xaar nag CNG bi moom décision finale bi nga xamante ne moom moo koy jël mm. ñu ngi koy xaar ci décision bi mu war a jël mm. pour lan parce que parce que tamit ñun dañu dagg suñu ay billets ñëw promoteur bi mu ngi réclamer ne combat la amel CNG bi ñun aussi ñu ngi réclamer li nga xamante ni mooy suñu suñu suñu suñu billets yi nga xam ne dagg nañ ko te programme bi te lamb amul. da ngeen ñu rembourser leen. si bu ñu mënul rembourser aussi ñu tëggaat combat bi. Mm. mais vraiment lii du c'est la première fois te bëgg nañ ñu jël ci benn mesure boo xamante ni saa bu lamb demee tee nii ñun amateurs yi dinañ xam ni lii moo ci suñu suñu cër. Mm. vraiment di sant ñëpp di gërëm ñëpp.